waaw di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di gën a ñaari waajur yu mag di ñaanal ñi ne ci hôpital yàlla fa gisal bopp ñi nga xam ne tamit caabi féete na leen ginnaaw ñu génn te bañ fa delluwaat waaye daw yu ñu leen yàlla yàlla yërëm leen taxar na àjjana fir daw si di ñaanal Sénégal yëpp diaspora bi fu waaye munti nekk wërsëg yàlla la yàlla may gudd fan ak wér xam nga yaa ñaan yàlla Sénégal yàlla fi jàmm yàgg la waa di ko félicité di ko félicité bu baax a baax a baax parce que euh, lu ku yàgg si teen baak fekk la fa xam nga vraiment nekk na nit ku baax xam nga nit bu am kàddu nit bu déggoo Malick ñu ngi lay ñu ngi lay félicité bu baax ci yen bi la yen bi yàlla suñu borom teg xam nga nga xam nga bañ ci am benn benn benn benn rek rek benn gàllankoor xam nga nit ku baax la te tamit aussi mu wax rek vraiment ku am cofeel ci moom lañ xam nga rawatina mbër yi di encourager tamit aussi brassin bu baax waa liggéey na liggéey bu rafet xam nga tamit jiite na ko mais teg na lépp ci yoon tamit aussi vraiment gis nañ lu mu liggéey liggéey bu rafet liggéey ak euh, xam nga ak ay nitam yëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen encouragé bu baax a baax a baax di wax Malick Ngom nag moo ko am expérience ci mbir mi la te tamit aussi mérito na ko. waaw lan ngeen moom déjà. Hmm. moom Malick Ngom président CNG parce que li ñu xaar ci moom mooy lu ñu lu mu xam ci làmb. Hmm. duñu ko ci làmb xam nga. xam tamit aussi suñu bébét xam tamit aussi fu ñu bëgg yóbbu làmb te je pense que loo doonu taalibam te doon sëriñam loo doonu taalibam te yaakaar naa ni kaala ci ndigg lay njëkkee mujjee ci bopp te xam naa ni tarbiyo jaar na fa te tamit aussi ñoo bokk bëgg-bëgg tamit muy sant ngom di doomu séeréer xam li làmb <laughs> xam nga kon xam nga jaru jaru ñuy guddal ñuy gàttal xam na suñu mbébét xam na lu ñu bëgg te lu ñu bëgg moom la bëgg. Mm-hmm. waa mi ngi ci tax waaw exact exact exact làmb nag jiite ko xaw na xaw na difficile mm-hmm. mais je pense que dina dina dina déggoo gars yu baax te tamit aussi yaakaar bi ñu am ci moom xam nga ak yéene bi ñu am ci moom ñoo bokk yéene maanaam sotteeg def ci la moom xam na lu ñu bëgg je pense que nii yàgg na ci jàpp mm-hmm. ko day jàpp naa ni daal xel gën a daal. waa <laughs> non xam nga <laughs> dama am dama am déjà. décès parce que xam nga moom mu tout temps que yàlla def xam nga mu wàññeeku xam nga dina voilà mu koy xam nga di nga kii daal ñu bokk rek ñëpp ko bokk xam nga son système madame maa koy maa koy masa bu baax a baax baax jàmbaar la ah, aussi voilà exact voilà xam nga mënoo ci wan euh, kii lépp mais bon man daal lu ma kii daal mooy Bira Sène ak Malick Ngom benn waaw ñaar ñu bëggante lañ ñu soppante lañ te jàmm rek moo mos a am seen diggante lu dëgg Bira yeneen na Malingom li mu doon Malingom tamit aussi jàppale na Bira bu baax nekkoon ci ginnaaw du ko jàppale ci wàllu kon ñoom ñaar ñoo bokkoon mbir mi nekk ci mais nombre tànk yàlla su borom mooy ko neex mu fal ko waaw man daal na rafet waaw non ku ñëw rek parce que ñu ngi nekk suñu rukk di liggéey ñu nekk suñu rukk di liggéey bu baax a baax a baax a baax combat suñu kanam xam nga di ñaanal mbër yëpp tamit jàmm aussi voilà xam nga combat bi nekk suñu kanam ñu ngi ñaan tam mu dugg ci bisimilah rahmaani rahim waa jàmbaar génn ci alhamdulilah mi am ci réussite baax waa Modou Lo et cetera xam di ñaanal ñaari mbër yëpp jàmm voilà man daal bon sport làmb moo ñor di ñaanal tamit promoteur yeeg xam nga gaa yëpp jàmm du yàgg tuuti xam naa dina gis Eumeu Sène ci biir làmb non non non ci choix xam nga amu ci choix xam nga bii di ñëw nag làmb di ñëw moom dinaa laal ci ci joolaay tuuti ah waaw parce sama xam nga luy wax rek asomploo laa <laughs> voilà xam nga sama papa séeréer la mm-hmm. sama yaay nekk joolaa waaw mi ijoy jàmbooj voilà man dama xam dama laal ci ñaari côté yëpp. moo tax su may ñëw ci làmb damay ñëw ci culture njëkkee ko suma côté papa mais biir ñëw nag naa laal ci séeréer si mais naa bëgg naa laal ci joolaa bu baax a baax. Ah, ah, ah. parce que am na lu ma ci mën a waa bajaana sur le caay xam nga mooñaam biti biti xam nga. voilà xam nga waa yooyu yëpp ko tàmbu yi xam nga ñun ñëpp Ziguinchor xam nga. pour lim dara dëkk yi da juum Casamance gi yëpp bii ñëw moom dinaa a sëmploo jaar dinaa la wan ni xam nga seen jarbaat mm-hmm. waaw ñëw na bu baax naa laaj ko day parce que am na lu mu ci mënee lu bari loo xam ni uh-huh. ba léegi waneeguñ ko mais prochain combat incha allah buñ mm-hmm. gis culture xam nga ci côté Joola ak ci côté séeréer bu baax a baax a baax incha allah waa di ñaan yàlla ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim di ñaan yàlla yëgale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te xam ni Sénégal lu mu wax benn bopp kenn mu ko xaaral ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nit ku neex nag nit nekk am nga droit féete fu la neex wala fara neex mais loo tax Sénégal di benn benn jaxaso wala moom benn moor wala dara parce que ñëpp ay mbokk lañ boo balaa nga xam rek xew am te tamit aussi bu ñu gaañante suñu biir ñooy jooy ñooy sang ji ñooy suuli ji ñooy jaalante tamit aussi suñu biir ñu xam ne takk der yi suñu mbokk lañ suñuy frère lañ ñoo bokk moom benn kër du dëgg te tamit aussi am na njëriñ ci dëkk bu baax parce que dëkk moom foog mu am ñoom tamit ñu xam ne tamit ñu seeni frère ak seeni rakk la nañ ko def ci fair play ko lu ma rek Sénégal dañ leen xamee woon benn affaire bu ñëpp dem taggee muy fu ñu fekk xam dañuy solucé bëgg suñu bopp teraanga koo gis càppee kon sa bopp mais loolu ñu am ak kilifi diine yi ak kilifi aada yi li ñu def ci biir Sénégal yaree ñu ko ba ñu màgg suñu deful nag nuñu ñaanuma ko yàlla li xew ci yeneen dëkk yi mm-hmm. bu def nag dina xew suñu dëkk te xamuñu loolu ñu dañoo xam booloo bokk ndey bokk baay te Sénégal kenn musu ko xam ci soxor exactly nañ xam ne ñëpp ñoo bokk ki war a falu mm-hmm. yàlla suñu borom fal na ko pare mbindeef mu ngi ci daara mm-hmm. yéene lañu am nii rek mais ku war a falu yàlla suñu borom def na ko man daal maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def jàmm ci réew mi nañ xam ne ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ko làmb la rek mm-hmm. dina neex dinañ xam animé mais buñ paree ndam li génnu Sénégal waaw que le meilleur gagne ñu ngi lay nuyu bu baax <laughs>